Tambacounda et Mbour, mesdames les présidentes de réseau de tey kaddu yu di gudd kaddu cant rek lay mëna a doon ndax lii ku ko gis xamtu ay caaxaan nit ñi kenn fayu kenn defu leen dara waaye seexul xaddim da daan wax ni kuy jariñe te doo lore foo dem ñu fekk la monsieur le maire dañu koy ñaanal ndax day jariñe te du lore dafa am tur ñu ko joxoon nag ci jurbel mooy le maire sans frontière mooy maire bi nga xam ni Malicounda daf ko soxla Diourbel daf ko soxla mais Sénégal gi yépp moo ko soxla sànq madame Guèye junj na ko muy ñu koy laaj bari na waa Tiwaawan ñu ngi koy laaj waa Thiès ñu ngi koy laaj waa kawlak ñu ngi koy laaj waaye waa Touba ñu ngi koy laaj kon nag ngeen xam yéen ki ngeen yor liggéeykat la ku am fulla la ku am fayda la ndax ku boole li mu boole bu ko neexoon mel na neen waaye dafa xam li président de la république bëgg mu nekk ci waaye boole ci fulla ak fayda kon nag loolu dañ ko koy seedeel muy loo xamante ni lu mu liggéey ñun la yaakaar naa ni nag tàgge boo gis am na jàppal diw te bu ñu jàppalewul woon tey jàppalewul jigéenu Jurbel tey du leen jaral déplacement te wax nañ ko sànq quartier boo jël ci Jurbel rek am na ku fa jógee ñëw ci am na ci ñoo xam ne déplacé leen lu jafe la waaye monsieur le maire jaral na leen tey ñu jug déplacé pour ñëw ànd ak jigéen yi Malicounda yi ñu nekk benn liggéey liggéey bi nag ñun ni ñu ko bëggee ni ñu ko yéenee mooy diggante Diourbel ak Malicounda nekk benn ndax Mbour am na géej te ñépp xam na ni géej am na lu baree bari lu nekk ci biir tey jigéenu Malicounda war nañoo mën a liggéey jigéenu Diourbel ci côté boobu mooy diggante jën yeeg yu mel noonu ngeen fexe ba di ci liggéey jigéenu Jurbel ndax ñëpp xam na ni Jurbel rek la ko wër amul géej te lépp luy jugee ci géej amu fa waaye Jurbel tamit li nga xam ne ñu ngi koy produire nga xam ni foofu bassin arachidier la ñu fay bay lépp ñu fexe ba lépp lu ñuy bay bi ñëw Malicounda bu ko defee mu nekk liggéey boo xam ni day dox ci diggante ñaari réseau yi waaye nekk jàmm ak salaam muy loo xam ne ñun ñëpp moom la ñuy ñaan dem Guèye nag sànq wax na ko ñoom bi ñu liggéeyee dañoo am ci ay yu bari yu ñu dugg ay formation waaye ay financement yoo xam ni tibbee ci nañ ko seen kees bi ñu defee calcul bi rek 1 million 500 boo xam ni dañ ko financé waat mooy bi ñu bëggee dugg ci euh, euh, kii yu radd beek yooyu yëpp bi ñu ci bëggee dugg bi ñu defee financement bi moo tax seen kees ndekoon bu ñu ñëwee tey bu ñu defee calcul bi dinañ am million millions cent bi ñu ko calculé kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne nag wax mbooloo mi am na li ci des nag mooy jàppale président de la république ndax jàppale ko mooy jàppale monsieur le maire bu ñu gisee monsieur le maire mu am doole ji mu am man li man c'est parce que président de la république moo nekk ci ginnaaw moo ko dooleel kon nag ñit ki bu lay jàppale yow it da nga koy jàppale jàppale ki mooy ñun ñëpp ñu takk bañ a xool kenn waaye xool monsieur le maire xool le président de la république pour le soir du 26 février président gagné premier tour ba ñëpp ñu koy fête loolu ñu koy ñaan dañoo kontaan ba mu ñoo wax di wax it ànd nañ le secrétaire chargé de la jeunesse bu ñu sanoo ñi jeunesse su Diourbel nga xam ni ni jigéen ñi takkoo noonu lañ takkoo ñu jëmmale leen ak jeunesse su Malicounda ñu xool noo xam dinañ ko mën a liggéey ba ñaari dëkk yi nekk benn monsieur le maire di la fàttali nag waa Tivaouane ñu ngi lay woo waa Kaolack ñu ngi lay loo waaye waa Touba tamit ñu ngi lay woo loolu tamit xam naa après dinañ ci waxtaan pour ñu xool mu gën a yaatoo ndax Sénégal gi yëpp ñoo soxla monsieur le maire kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala